bismillah ñëw digal nga am Umar إنني براء مما تعبدون ñaanal nag jotaay bi du gudd ndax damay dem fële su ma demee ba ci kanam tuuti rek ma bàyyi leen ngeen continuer ma dem fële ndax su ma sañoon mbir mi benn lay doon ndax ma noppale su ko defee buñ jugee ko ci lii di jéem a xool moom waxtaane comme que yonent bi moo ñu tax a jóg problème quartier bu mu jaar ci diggante li am solo mooy sa sa yéene sell li ngay def nga xam ne kenn la tax nga di ko def muy yàlla ak ak yeneen yoon dafa bokk ci sama principe man daakoowuma kuy baare tali tali citoyen bu baax bu baare tali réew yi président du ko defar citoyen yi mooy defar dafa jaar ñu dëkkandoo ay chrétien ñoo xam ne gëmuñu yonent bi ñu bokk réew ñu génn war a doxi seen soxla ñu bokk tali bi ñun ñu baare ne yonent bi moo tax ñu baare ko déet yonent bi digalu ñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na Jibril daawul dégg ku dénk dëkkandoo moom yaakaar ne bu dëkkandoo génnee àdduna morom bu ba tax na tali bële maa ngi woon gis naa ñu baare te ñaare feebar nit day feebar ñu war ko évacuer yóbbu ko ñu wiire ko wiire waat loolu tamit dina des na ak sant ñu ko. Hmm? bàyyi ca xel su defee ne bu beneen yoon ñu gën a dajee ñu waxtaan def ko mu gën a e ah, ay na sax bu beneen yoon incha allah ñu dem si awal benn yoon rek su ko defee ñu ngi leen di ndokkeel yéen waa kon bi di leen sant bu baax di leen gërëm. burdu bi rek daanaka daa jàpp woon wax dëgg yàlla waaye tey dama am rek benn point bu ma bëgg a waxtaanee muy yonent bi ak alquran yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak alquranul karim même burdu bii ñuy jàng burdatul madian danga jàng ñu ne qarrat biha aynu qaariha fa qultu lahu laqad safirta bi abdillahi faqasna in tabluha tifatan min ardi naari lasa atba'ta arra lasa min wirdi assabil yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu amee ñeent fukki at la ko yàlla yónni waaye bi ñu koy yónni daf ko jox benn leetar leetar bi mooy alquranul karim bi mu amee ñeent fukki at yàlla dafa yabal ndaw la ñu wax jibril mu ñëw ci moom. bi mu ñëwee daf ne ko jàngal mu ne ko luy jàng nga parce que ñun xamuñu lan mooy jàng jibril jàpp ko gësam ko ba mu miir na ko jàngal na ko man xaw ma jàng mu daal di lox fekk na bi muy gën a féete ndaw moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lépp luy xeetu jaaxaar boole wu ci dundam da daan dem di wéet moom dong ca àll ba yéeg ca montagne ya di tudd yàlla di sàbbal sunu borom subhanahu wa taala fa la ko Jibril njëkk a feeñoo bi mu ko feeñoo lan la ko indil alquranu karim lan la ko wax jàng bi mu jaaxlee dem ci këram fekk fa soxna su baax soxna su baax lu xew ah ma ne xam na nekkoon doon jaamu yàlla dafa am lu ma lu mu la wax na ma jàng loo ko tontu man du man kat xaw ma wuy jàng ah Babou da daan diggal Moussa moo la diggal waaye may may ma def ci benn laajte posé ko question laaj ko ba mu demee ca laajte ba laajte ba seet ci xam-xam na ko yii kii Jibril la malaaka moo ko dikkal waaye bi mu ñëwee li mu njëkk a wax di ko yonent bi nettalee li mu gis daf na ko yow dalalal sa xel ndax nit ku baax ku mën a jox mbokk nga ku mën a def lu baax nga jëmee ci nit ñi kon yow yàlla du la gàcceel nag mu jigéen ko ma dem ci benn labbi bu tudd Waraqatu ibnu Nawfal Waraqat Waraqat moo ko wax ne ko malaaka bi ñëw Jibril la tudd lan la ko wax iqra iqra mooy lan jàngal lan ngay jàng sa borom iqra bismi rabbik kon kon ay bu njëkk a wàcc ci alxuraan mooy jàngal kon ñu taxaw tey lan moo tax ñu daje yeneen lan la ñu andil alquran léegi ñu taxaw ci lan mooy alquran tey yow mi nga xam ne yàlla dafa dogal nga am doom jël doom bi yóbbu ca daara ñu dalal ko jàng bis biñ dalay jàng xale bi bis biñ dalay jàng la yàlla di xale bi bis bi mu daan jàng ci la yàlla andi araamal yaramoon sama sëriñ bi koy jàngal bés bi mu dalee jàng bés boobu la yàlla di araamal yaramoon sama xam nga nan la mel dafa mel ni ku am oto booy loolu lim këru Tijaan yi nekk Sénégal jege na téeméer xëy na Tiwaawan dana siiw rek gën a siiw kon ci biir Tijaan da nga dégg ay kër yu wuute rawatina ñi rek li am solo mooy kenn ku nekk lépp sëriñam sant na ca nekk waaye bu fekkee ne euh, Tijaan defoo ko lu bëgg a baax ci Cheikh Tijaan boo rombee benn murit yaa ngi bëgg a gaarawaale fii Cheikh te yow doo dugg ci jàpp ci julli doo wasi ko Cheikh nekk bu fi nekkee nekkul ci yow bu dee Cheikh bi nekk bu dee yow rek yaa tax Cheikh nekk bi kon Cheikh nekkul pour nga mën a doon kii jaam da ngay respecté diine respecté waxtu julli juróom respecté mboolem nit yàlla yi ngir leen yàlla mais tuur ci jaar yoon ba li ñu laa jëm ngir de da ngay la tegal ñaar fukki sart ak ñett da ngay nag war a respecté sa ñaari way jur boo ko nag ko respecté duñ la jox ñoom aussi ba bii ngeen dégg jëri ba tax na yombul yombul yombul nag mu ngi ci boo doon julli boo doon julli nag yomb benn affaire la rek astafurlah bi ñu lay jox pour nga am benn heure boo ko def rek après dem defi jafe ndax mënoo ci dëkk bu dee lim biñ la jox lim sariya moo ko jig ndax boo jullee ba noppi da nga def subhanallah ñaata 33 alhamdulilah la ilaha illallah après nga dem jox sa soxla dañoo bëgg tamit suba ji ba mu xëy nga def astafurlah 100 salaatu ala nabi 100 la ilaha illallah 100 nga def door a dem waaye am ndigal li ak xëy rek di ko defee du mel gis nga bale marché baax na bale marché baax na ku la romb dana la wax merci jërëjëf waaye bu la ko miir bi digalut bu weer dee doo fay da am merci la yàlla ba liggéey digganteem ak boromam ba yàlla nangul ko jox ci ndigal spécial ndigal lu spécial loolu bokkul ak yow yu di defal sa bopp du mbedd yi mooy murid déedéet hmm. hmm. sëñ Tuubaa dafa bind ni murid war a mel man murid laa ak ñu bind ni ki nga aj wax ni murid war a mel rek sëriñ Tuubaa mu ne isil murid laay may du abada xayra ridal rahmaani ay dañ ko laaj nag waa man man de sëñ bi dañ lay laaj muri lu muy mel mu ne daal am muri waxul dugg àjjana de muri muri ngir mën yàlla nekk lu ngir mën yàlla nekkul du du ko du jafe isil muriidu laa yuriidu abada xayra ridar rahmaani ay fexata moonte ab taalibe ñu ne ko ah, mu ne du bëgg mukk lu ngeen mën a yàlla du ca nekk du ca dox du ca wax muy xëccil cigarette mais kii muy kuy tuur cigarette wala ko du sëñ Tuubaa maa ko wax gémmiñ bu xasaw cigarette hmm. tuur sëñ Tuubaa bi na seetle rawatina buy tuux yàmba rawatina buy buy naan surtout ba nam seen léew ci yàlla waaye seen bi xool leen dul waay nam seen li ci nga def sa lu bon tuddoo ku dul moom eh, day nekk jom du dara ñàkk jom jom ab sëriñ boo ko toppee bu amee jom da ngay am jom bu ko yàlla jaralee lu ne yow tamit yàlla da jaral lu laalaante tiitaru fii déedéet loolu bokkut ak yàlla dara am yàlla ak nekk ci coow li benn yéen a xam ngeen ko bëri na parti politique boo xam ne buñ demee élection dina wan ne ne moo fi nekk waaye bu ñu kon mbir mi nekkul ci coow ngi nekk ci jëf sëñ tubaab bi dina wax a xale xale yi daal daal ña ko يأي الصبيان لا تشتقلوا عن الهدى وبالعلوم استقلوا وانتقلوا بالعفش والتلاوة واجتنبوا مجالس الثقاوة ولا ذنب من لا يفعل عاملا لربه إلى الهدى وفائدة فكل من بادر وقت ثقل إلى الهدى سرع وقت الكبر يا يوسف يا مين خلي لا تشتقلوا عن الهدى لن يكون بلين بلين بلين wa bil ulum istaqilu na ngeen soxlawoo jàng am xam-xam foofu ci réseau listixaar la ko waaye réseau subbaan dafa wane yaa ayyuha subbaan in xiftum xajal faqaddimu taalluman ala amal yéen waxambaane yéen lay waxal ku ci ragal gàccay jëf penc bala ngaa jëf na nga jàng waaye léegi fekk gi damay léegi koo xam ne lii faraaru ci bopp ñu jox ko micro mu naan dégg mu wóor ne moom xam na ne li muy wax dëgg moom xam nit ñi toog it xam nañ li muy wax dëgg yàlla it xam na ne li muy wax dëgg sëñ Tuubaa wax na li muy wax dëgg li muy daanee fii damaa bëgg ngeen xam ne sëñ Tuubaa fi nekk waaw ñi ci def rek ñoom ñu ngi def ah la la fa la nekk ñoom léegi yooyu yëpp ay wax terme la yoo xam dara bokkut ak li Sëriñ Tuubaa santaane dañuy dem ba léegi nag abara tijaan ñoom bi dañ ko dund waaw kii Maodo mi nekk cëy Maodo cëy Maodo waaw abara cëy Maodo da jàngoo dara doo julli doo wasifa dara yàlla nekkul ci yow cay Maodo gi après sëñ bi yii ñu ne kii du dara de kenn ku nekk boo delluwaatee sa kër huit heures ma xool sama diggante sama li ma yàlla di doyee maa ngi ci war a nekk sama sëriñ li may doyee maa ngi ci war a nekk waaye da ne da koy wóor ne billaahi wallaahi matu sëriñam ci taalibe moom xam na ne doomu taalibe sëriñam xam na waaye léegi bu xuloo benn waaye li muy njëkk a def mooy diw daa ko mu sëriñ yi dara xuloo ngay xuloo bi yemale ko seen diggante rek waaye il faut nga yëg di sëriñ dóor ci kaw loolu yiwul bu dee sëriñ Tuubaa lenn la digle mu ne wala tuaadu man raaytumu faaw yuridu laa ilaha illa allah képp ku ngeen gis génn yéen di génne laa ilaha illa allah nga léegi maa ngi waxtaan rek nga kii romb mu ne jërëjëf sëñ Tuubaa léegi baat boobu laa bëgg a firi jërëjëf waxal leen wax ma léegi jërëjëf sëriñ Tuubaa jërëjëf mooy la même ma posé question si la laaj naa leen dama koy dégg lu bëri ah mooy la laaj naa leen ko déedéet dama bëgg ngeen jël ah nit ki baloo gàllankoor ngay xam ah sant ko du sant ko déedéet du sant sëñ Tuuba de jërëjëf sëñ Tuuba du sant sëñ Tuuba muy jërë jërëjëfal jërëjëfal sëñ Tuuba ku jërëjëfal moom sëñ Touba jara jëfal waaye da nga koy jëfal lu jar a jëf fecc ba day saal ne jërëjëf sëñ Touba ndax te fecc bi jar na kaa jëfal loolu de mooy jara jëfal mooy jara jëfal mooy Sénégal bi laay ñoo am dañ mu àll yàlla seen parce que lu bëri lu ñuy wax xam nga alhamdulilahi rabbil alamin ba mag ma demuñu rek dañoo bind bàyyi li leen waroon def gàmmu gi nag lii lay jëriñ nekkuñu fi naan yéen ñu ba naawee ci asamaan ka après ba mu wàccee ca weer wa ba mu xaree weer ah baax loolu baax waaye dañoo toll ko jëkkuw yu yàqu yoo xam ne il faut ñu waxtaanee sinon dañuy tëjee tëjee ba ëllëg ñu daje suñu borom moo jëpp kon leer na jërëjëfal jaar jëf mooy ku jërëjëfal waaye ku jërëjëfal da mooy jëfal lu jërëjëf ba tax na euh, kàddu yi mu ngi bëgg guddi maa ngi bëgg dem ca ñële euh, yàlla na yàlla defal ñu dégg defal ñu topp yàlla na yàlla dimbale suturaal man nag dama koy wax kàddu yi jàppaloo ma kenn dara ku ma tooñ ñu jéggal dafa am ku ma mos dem ci këram fii ci koñ am na ku ko fekkee bés maa ngi koy nekkee fii dama ma kanam gi di tàkk wallaahi ma bàyyi ba yoor yoor ma dem këram maa ngi fekk mu ngi toog yaay mu ngi toog ak benn. càmmoñ ak keneen man ah man nuyoo ñu fay ma man a yaayam ah man de sa doom bi li ma fi indi dafa am lu ma yàlla war ci mu di ko laaj lu ma jàpp man daal bëgguma dëkk bu ñuy gaañoo ci man ndax am ñu ñu waaye xaw ma dara waaye jib te yàlla seetlu na ko ci guddi gi laa def samay lawraatu kaaraange tëdd ñu woon ma loolu maa rajo kenn xamul lu mbëkk ñiir ak ñiir mbëkk la moom fa nekk lay nekk rek waaye boo ko bëggee am na bés maa ko métti fii ci biir kër gi am na ñu ma koy am na ku toog ne la laa ah, fekkee naa génn ab waaye est ce que loolu lu mu lay jëriñ jëriñu la dara ba tax nag. fii pour defaru ak defare moo fi waaye nag nit boo deful waxoo mu fekk miir mu mu mbëkk ko miir day gaañu wala kii ko mbëkkee gaañ jeex na ba tax lu may ñaan surtout xale yi ku ci xamul rek ñaan naaw yu bu ko def léegi ne maa ngi ñëw fekk sama oto bi ñu baas bi moom mu xote dama dugg rek ci kër gi ma ne ah bu dee borom tayu jéggal naa bu dee tay moo tay nag su ma jéggalul jéggalu moom nit ki nag dafa am yoo xam ne gis nga yenn kookale yenn def yi baaxul baaxul franchement te nag ñaara man maa tax na ñenn ñi jéem ñu jege la ndax duñ xam dañuy toog ca mbedd ma lu leen leer ñu def buñ gaañoo rek ñëw yow sëñ bi damaa doon nga ñaanal ne la nga doon dóom yàqu te te dafa bëri lu ñuy am te bëggatuma mu am moo tax ma di ko wax publiquement bis bu ne nit ñëw fii fekk fi ma sëñ bi dama bëggoon nga jéggal nag man la ah man ma dara yow boo génnee du ñu soog dem ngay def def lu génn dara bu dee am nga lu baax baax sëñ bi ñëpp bokk ko yaa xeeti na xarit bu ma am nga jógee ko bitim réew ñëw dañ naan sëñ ah sa kër gi réew rafet na su ma soxlaa te ji ma xool boo xam ne nag ñun fii ñuy wàccee bi ndox dafay xaw a métti waaye fii yàlla ko fi indi te yéen laa am man ngeen am te fii dafay laa kon ñu la dugal naa fi ci ñu ko rek sëriñ Abdou Addo Al Amin defe naa maa ngi dugg ñaata surtout yonent bi xalifa Cheikh Ahmad Tidiane ba nekk ca Fass ñëw na fii ci koñ bi. sëñ Pape ko fii ñi sant Taal ñëw fii ngeen xam ñi sant Mbacke ñëw fii ci ma seet sama jëmm tax waaw léegi nag nit ki nag yu demee noonu bu koy def li tax may def occasion waxaale bi tey bésu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nañ jégaluwaat raxas xol jàppante moytu leen moytu leen am na am na ci xale bu góor bu nekk sama koñ ci koñ bi doon sama xarit léegi boo léegi ma moom fukki at ci ginnaaw waxtaan ma am lu ma ko wax taayal baax ma ñëw ne ma ah sëñ bi la ne maa la détaay te loolu yëpp boo sañoon jàmm ñëppay yokk ñëppay am jàmm te yàlla fexe na dama ko wax naa leen ne damaa génn bitim réew nekk Amérique di ñaanal koñ bi bu bu tëdd gis mbedd nii fii ñu toog nii gàmm ma gis sardin bu rafet boo xam ne maarabet te koñ bi nag mel ni ay baraag ñoo fay ko te baraag yaay moo ngi jeex hmm? kon ku sañoon fi nga dëkk fa la lépp di gën a baax su ko defee loolu occasion la woon nag ma doon ko waxaale ñu baal nañ la ñu baaluwaat ñu ku nekk na jox moromam loxo ne ko baal ma àq yàlla ñu yàlla boole baal yàlla yàlla jéggal ñu raxas xool yi jàppante ba bàyyi cheikh bi jeexal ëllëg na ci waxtaan bi incha allah. macha damay wax ne. kàddu yi ëppoon laa bañ a wax dafa mel ni comme li ñu waxoon léegi rek wax nañ ko léegi fii nii Ibrahima si ñu koy ak waa jataay bi ñu ne leen Dakar gii de bu amoon fukk yu mel ni Serigne Fata damay wax ne ndaw ñëpp danañ tegu ci siraatal mustaqim ki xam ne mission bi yëpp mooy ñu diine ji jëmee kanam mission yëpp mooy ñu ndaw ñu xale te Quran la sangul moom saw taar la la bëggal moo taxit damay wax ne ki xam ne léegi maa ngi koy ma ne ko keroog si sa ngénte xoolal jum ñëw te heure boobu nekkoon waxtu yoo xam ni ndax ñu waxtu kii yam ma ne ko Serigne Fata bokk na ci ay mbiram du xeebal nit ki bisam te ki nga xam ne euh, waxul ngir nga jox ko amaana boo yëkkati di la jox mais kooku soo ko amee li ko war a def mooy nga ñaanal ko yàlla yàlla yàggal ko fi am na euh, programme bu demoon waaye ñu ma ne ko kër Serigne Fada laa euh, nekk beneen loxo la ma joxaat wallaahi laa si ngir di ko tiitooloo damay wax ni ñooñu loolu bu jotoon si Serigne Fada wala ñu jege ko amaana ñu dootu ko gisati dañuy wax ne nag am ko te xamoo ko ñàkk ko te xam koo ko gën kon nag lii mu leen di wax mooy waxi soññu wax ku leen bëggal lu baax. ndax it dañuy wax ne deret nitu yàlla moom dañ koy toog amaana yow ñuy waxee feneen si moom te du ko fekkee te koo xam ne nii yitteem yëpp mooy bu julli jotee lu mu a maa jàpp da koy jox yàlla subhaanahu wa mu moom kon kooku loolu duñ koy defal lekk ñaanal ko yàlla fi mu bëgg quartier bi àgg fa yàlla yàlla àggal te gëm naa bu ndaw ñu bàyyi woon xel bàyyi ko xel ah, ah damay wax ne eh, ay numantuwaa bii de ah du ñee benn quartier quartier yi ñëw ñëw judi ko ñee te wallahi am ku dem ni Serigne Abdou Aziz Al Amin ñëw teew ah, ah, ah ku dem ni xalifa Serigne na Cheikh ñëw teew ay Mbaye Diabaté fi ñëw Serigne Pape Malick hee gars loolu am na ñoo xam ne si ko amoon wallaahi yaa si comme comme comme jamaa lañ koy jamaa moom boo koy yoree damay wax ne du nekk ne fu ne rek teg doo ko sàggalee ndax boo ko sàggalee rek dinañ leen jël ko ndaal ñaanal ko yàlla rek yàlla gën ko sàmm gën ko xaar làq ko fa yàqaatu. ndax damay wax ne ku ay waajuram gërëm sa sëriñ gërëm kooku noonu damay wax ne ah boo manee yor sa addiya nga jox ko jox ko waaye boo ko waxee leneen lu ñaaw sa bopp ngay gaañ am ngërëmal yàlla am ngërëmal say waajur am ngërëmal say sëriñ te ci am na ci am amin fii nii mujjantal xadara bi nga xam ne dikk na fi damay wax ne boobu mooy mujjantal bu dem seen euh, programme dégg la fi wax te amaana si Fapal jox ko lu tax mu wax Fapal di yam fa wax si moom kon nag ñun li ñu war a def mooy ñu def ko sax di ko de euh, damay wax ne ay léeg sax nit dama wax ndax ma yow ko yëkkatee moom dafa mel ni dafa dafa day waar waaye li nga fàttali bi yéen di daay yéen ngëneel ci loxoom yàlla la yàlla mooy jox ko neex te wax dëgg fa yàlla nit yàlla yàlla sàmm xaar ko ba bi nga xamee si la nekk yàlla def daal ah mu réussir ko lii am nañ si yaakaar di ko jox kàddu nga ginnaaw nga jàngaloon naa ñaan moom. waaw. baax na man maa ngi boo jéemee boo joxee tay xar bu ëllëgee ne lii nag yàlla dana la ci fekk. ndax yàlla moo teral yonent bi bésam ku ca teral ay doomu aadama yàlla tax ba tax na ñu wéy di remercier bu baax. di leen sant bu baax di leen gërëm ci seen taxawaay nekkin bii ñu nekk rafet na nañ ko continuer am na loo doon benn ñi bokkalul tariixa ñu xam ne mais àdduna noonu lay doole gis nga Sénégal ni ko yàlla mooñee mooñee na ñii dañuy doon ay chrétien mais dumu ñu nunti mais teewul buñ defaree nga la jox la nga lekk yàlla ñii dañ daan gëm ñu ma tariix dañ leen respecté am na koo xam ne nee na gëmul tariix jullit la dañ ko ko respecté parce que tariix dama la koy devenir ci lu gàtt ci lu gàtt pour nga déglu xam nga lan mooy tariix heure supplémentaire ah ci ku am contrat. heure supplémentaire force la wala du force du force waaye damay laajte ci liggéey heure supplémentaire bu weesee ndax dana bokk ak ci liggéey heure supplémentaire ah ci jeex loolu mooy tariqa benn nitu yàlla boo xam ne bàyyi na bànneexu nit ñi lekk mu dee doy nelawul mu doy noppaluwul mu doy di jaamu yàlla ñaar fukki at ñu teg wala fanweeri at ñu teg muy jaamu yàlla lenn rek lay ñaan mooy yàlla dama bëgg nga def yeneen bi feeñu jox xam ne man la koy may ndigal ma di ko joxe muy jaamu yàlla di jaamu yàlla di jaamu yàlla ba yonent bi feeñu ne ko jox naa la ndigal ci astaghfirullah temps jox naa la ndigal ci salaatu ala nabi temps mu jël سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل

وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات